mbir mi jafe ci ébola mooy màndarga yi tàngooru yaram bu gaaw biir bu daw waccu yile màndarga am na yeneen feebar yu ko am looloo tax xëy na mu bañ a doon ébola mën naa nekk sibiru mbaa feebaru yaram bu tàng ba tax na jafe na lool si ku mu mënti doon ku dul docteur mu firndeel ni waaw Ebola la mbaa déet du ébola ba tax na soo amee ab tàngooru yaram bu gaaw biir bu daw mbaa ngay wàccu danga war a dem si kër docteur ndaxte lu mu mënti doon dinga am ab paj foofu te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi dinañu mën a aar suñu bopp ci Ebola